Dernier changement du côté de, de Tengue avec euh, Pape Ibrahim Andong. Ouais, ce sera Maïjak Ndiaye, salué par, euh, par le stade Galandou Diouf, qui va laisser sa place à Pape Ibrahim Andong. Un très bon match, un excellent match de, de Maïjak Ndiaye. Malam Ndiaye, de Tengue euh, ex entré de Tengue euh, fi laa defee petite catégorie cadet junior après on m'a prêté à deux années après l'année dernière di ici après saison bi continuer aussi di travail saison a quoi vraiment. oui effectivement nous allons suivre le corner. Allez, ASC Mbaye Jacques comme à chaque fois. en waaw maa ngi koy doog a dugal quoi mais dugal naa ko en Ligue 2 ak Kër Madior euh, contre Wakam euh, Amadou Bari. daanaka boo xoolee ñun euh, équipe bi dañ ko mix dañ ko am na ay ay grand am na ay booy grand yi ñooy ñooy dimbali boy ci benn côté di di leen encadrer di leen wax nii la ak nii la boo xoolee suñu match yu bëri mutaaru chaque jour bu toogee si baa bi day jug discuter ak gars yi wax leen nii ak la ànd na leen Euh, côté boobu moom amuñ si lu si siki sàkk te staff yi moom ñu ngi def seen liggéey bu baax a baax a baax ñun aussi joueurs yi ñu ngi si def suñu suñu ñu ngi bay suñu waar quoi ndax euh, boo xoolee euh, on a joué sept bi mooy ñu marqué si huit bi encaissé deux bi jafe na jafewul parce que boo xoolee si ñun on a fait cinq matchs clean sheet on a encaissé deux deux matchs boo xoolee kon en défense. Non, on a gagné 4 euh, matchs 3 matchs nuls une équipe dynamique ça peut être un il a il a beaucoup d'espace mais Jacques le crochet il va s'appuyer sur Parou Marfal. il y a Zilet derrière la frappe la frappe un peu en, déséquilibre de de Jacques Ndiaye. Euh, temps boobu jouer. temps de jeu bi parce que mën nañ di jouer mais dañuy ñam rek mais xam temps de jeu bi bi joueur soxla dëgg mën na ko war am fii jamono jooju parce que y a des joueurs yoo xamante ne ay Malick Sambou Djibril Sila Ousmane Sakho ay Ron ñoom ñëpp ñu ngi fi woon quoi te ñu ngi doon jouer même poste c'est très difficile ñu ñu intégrer ci équipe bi di comme titulaire quoi mais jàngal na lu bëri Kër Madior quoi vraiment maa ngi leen nuyu au passage ndax deux ans ñu fa def yëpp liggéey nañ fa bu baax baax baax baax baax Koité. Koité avec Chersar. Le voilà à nouveau Mbaye Ndiaye. La feinte, la fenêtre de tir. Et ça passe au-dessus. Début d'Alfred Gomis. pour ndax euh, boo xoolee tey jii nii am na joueurs yu bëri yoo xamante ne tey fii ñu ngi évaluer évaluer si championnat bi euh, ñoo xamante ne talent bi am daanaka boo demee Europe sax danga ko fay fekk ni mais du bëri ndax fii am na ay excentré yoo xamante ne comme man ay petit sec il joue très bien euh, maa ngi koy ziar bu baax sama copain li muy def daf ko mën te aussi affaire daal liggéey liggéey liggéey. Mbaye Cheikh Ndiaye devant Vieux Yankhoba Mbaye Cheikh Ndiaye côté peigne dugg na prête à tirer ce penalty qu'il a même provoqué hein, le nouveau maire face à Idriss Ndiaye, l'enfant de Giade. Baïchek Ndiaye, que va-t-il faire Le nouveau maire. Denis Mayor, Peng, Dougouna Barbe, nous atteindre euh, meilleur buteur je pense 17 euh, bii la am xaw ma baar barbe je pense Euh, dañuy ñaan yàlla aussi dépassé foofu noonu euh, ndax ku nekk say say say say say say say mbébét ñun dañuy ñaan yàlla aussi chaque match buñ mënul di dugal ñaar chaque jour ñuy dugal benn di gën di di voilà di dimbali équipe bu baax baax baax baax waaw ma lambee nag euh, ñu dem seetaani 13 13 TV sur YouTube yaakaar naa ne Euh, ñu ngi apporté lu bëri si championnat Sénégal ndax euh, ñu ngi jël gars yi ay interview dem di seeti gars yi affaire yooyu noonu te si am solo bu baa a baax maa leen di jaar di leen jox seen wàccuwaay di leen nuyu bu baax a baax.